maafa komin ko a ma fansoto de bare naya fansoto fana is not 5 percent 5 percent len fa it is not 100 percent ngo 5 percent a lot need to be done still and wolem di wolem it is true hani hani forin fa ni laftala fo ni mom findi ita soto la <laughs> sa fu no benn compagnie lañ fi am saal xam nga yeneen ñëpp dañ koo si sa li mm-hmm. dafa am diggante weer mm-hmm. ñaari jàkkaarloo ak jàkkaarloo bi mu njëkk a def mooy january 19. bi mu waatee. février 18. xam nga diggante boobu weer motu ci. 19 février 19 lay mot. weer. Uh-huh. waaye ci benn weer bi ñaari jàkkaarloo ak réew mi la def. Uh-huh. bii ñu koy jox mu waat jël lenge réew mi. mu wax réew mi xam nga what he happened so far comme ñun am nañ suñu freedom. Uh-huh. yow yaa ñuy lan nga bëgg a réew muy ñaan ma desiwaat ci biir indépendance bi. ñun Afrique dañu gën sonn li ñu gën a sonal mooy tubaab bi dañu ñëw ñu jaay ñu noot daal ñu suuf si jël def xaajale soo gisee xaajoo yëpp am ci Afrique tubaab yi ñoo suñu booda ne réew fii la yem bële fa la yem fa la yem ci réew yi ñun amuñ booda ñun dañoo fu ñu neex la ñuy duggee te foo dem am fa bokk foo dem ne salaamaaleykum jox na ñu dox la mbokk. Mhm. bu ñu fa nekk ku sant sa sant mën mu tudd sa tur wala mu bokk ngeen bokk liggéey ngeen di def wala ngeen bokk xeet. Afrique na ñun ñoo ko moom. moom bi ñuy wax nii ñun nañ gën a indépendant lu ñu gën a mën a loo. Mhm. moo ñu African Unity. Mhm. ñu bokk gis-gis. bokk jëmukaay. bokk doole. di nangu nag liggéey suñu réew Afrique bi ba mu ne cot. Gambia ko deful. egli feebaare bu jot ñu taxaw di rëkk Fora Gambia homeland nit ñi may paas gars yi tasaaroo jeex na taag duñ ci jàngati dara nañ nangu liggéey nangu defar réew mi nangu juboo ñu Afrique suñu biir xam ne am na ñu bari lu ñuy xeex nii tubaab bi lu ñu nekk suñu biir lu ñuy jaxase loolu la ñuy xeex dëgg la ah Bourguewel I know that ah, you are a true African waaye xam bés bi ah, o waxtaan bi ah, lu ko waral mooy xam nga di Gambia uh, will actually celebrate uh, 57 years uh, since uh, we actually get our own independent as um, uh, everybody um, knows about it while leader daal xam nga dafa nekk uh, important torop 18 February lañ Friday Friday Gambia will actually celebrate the independent day in a grand style Uh, what actually uh, what message um, do you actually think that comme xam nga yow ban ban façon message nga foog ne like uh, the people ñi nga xamante ne xam nga they will come outside there to talk to the Gambian people ban façon message la la ñoo siya to the people. lenn daal xamoon naa ko ci. Mhm. te yaakaar naa ne su ñaari po président bi président Jammeh. ak ki nga xamante moo jiite réew His Excellency ñoom ñëpp indépendant lañ judd. kon ñu ngi leen di wax ne happy birthday. February. Hmm, February 18. ci ci bo seen 1965 lañ. ah ok 1965 ok. waaw ok ñoom 1965 lañ. waaw waaw IAB soo foofu laay refaat. léegi da gis ne ñooñu. Mhm. bañ ñu doole am. ndeysaan kon te ñoo jiite. Mhm. ki fi nekk nag bu demee day ba wax ak réew mi war naa dalal xel yi war naa gën a. mun a wan gars yi ne yaakaar gi ñu am ba jox ko ko. Mhm. yaakaar googu du mus a tas. Mhm. te li gën a nekk ci indépendant mooy mhm. sa bàkkum réew lu waay di wuyoo lu koy niiroo bëgg sa bopp nag li naan sama bopp mën a gën a du bañ naan africain dañ war a bëgg seen bopp force tubaab yi mënuñ ñoo defal lépp te dëkk dëkk bi di réew rek du mooy tekki am na nit yoo xamante ne tey jii boo leen waxa waxale li xew dëgg moom boo ko waxee rek mu indi ñëw na waaye xam naa ki leen boo demee Sénégal ay yeneen réew yi nga xam ne feneen colonie la xaw ma seen seen seen tuuti lañ leen colonise dañ fa tabax comme Ivory Coast Sénégal ak yeneen sew yi ni Dakar yooyu tubaab fa ñu dëkkoon France yooyu lañ fa liggéey moo tax pour génnee leen fa sax dañ ah, naan na isa bi problème ba léegi mhm. waaye xëy na angale yi ñoom ñoo talutoon dara lu mooy jaay suñu maam yi jël suñu baax yi ba pare tey ñu tere ñu dugg fa boo fa duggee ñu lay saytu comme yow daal mooy loolu waaye nag réew ñëpp duñ mun a yem ñëpp duñ mun a yem de mm-hmm. ñëpp duñ mun a yem te am na tubaab yoo xam ne bu ñu jógee ndimbal lépp dañ ko indi Afrique am na ñu fii li seen maam yi defoon mm-hmm. moo tax ñu ñuy dimbale ba tey ah. dama ànd ak tubaab ba mu ne ñu ñu dem Tom James Island dem fii dem euh, Fort Blaine so ñu dem man ñu téye sabar yi ma ne ko léegi téye sabar bi mu toog lu yàgg tekk di ma xool mu ne ma ne ko what is the problem man mu ne ma Abdullah did you think that uh, how do you feel about what our ancestors do did to yours. Mm-hmm. ma ne ko you you are calling our ancestors this is past you cannot take me as a slave you <laughs> can if I I could say that I take you as my slave. because I'm putting you anywhere. maa ngi la yiiri yaa. ñoom xam you are my slave. because of you want to know here. Mm-hmm. you want to enjoy Africa you want to you want the sun to hit you. Mm-hmm. so you are coming to me I'm I'm I'm your your your your your your king and you are my slave. Now, mm. Mm-hmm. it's, it's, it's, it's, it's turn. Turn. <laughs> everything turn by turn around. Like you should say, turn by turn. <laughs>